ñaar fukki at ak benn képp la am moom nag dafa filmé woon boppam ci ab vidéo dugaloon ko ci whatsapp yónnee ko woon ab faram vidéo bi di daw ci biir Sénégal ay mbokkam xàmmee ko demoon na sax ba xalaat ne kon dafay xaru waaye daal gis na ne gàllankoor yi dafay gën a yokk ndaxte fu mu romb nu joxoñ ko internet bi di indi ay jafe-jafe yu bare bari ci askan wi rawati ñi nga xam ne kon dañuy faral di jëfandikoo whatsapp ak facebook loole waa Touba ak waa Mbacké wax ne faw rek nu waxtaan ak gune yi nu xool sax nekkoon ci langue politique yi yéen saa yi dañ koy faral di jëfandikoo di yàqante seen biir waaw internet de instant yi moom bëri na ay trop parce que yàqute yu bëree bëri bëri ak problème famille problème entre des amis yëpp ci lay amee léegi parce que nit di ngeen nekk ay xarit kees di dund beneen jour ñëw ngeen am plaignant mu jël lépp lu mu xamoon si yow lu bon mu yor ko ci téléphone mu dugal ko si internet ñi la war a xamal ñi la war ta xamal yëpp xamal la te loolu sa vie privée woon nga jàpp woon ko sa xarit dugal ko man moom gis naa ne instant yi internet am na li muy yàq daal moo ëpp li muy defar par rapport ak monde bi ñi nekk nga xam ne dafa bëri ay mineur léegi xale yu ndaw koo ci gis. mag ak téléphone bu luxe bu normal lu ko neex lay def papa mag yaayam toppatoo ñu lan lay doye téléphone am to japp na internet nekkoon na lo xamne lubah lu bax rek lañ ci jublu mom lañ ci jublu sax waye bu ne nit ñu lu bax rek lañ bëgg lepp ngi mi ngi defar waye mi ngi yaq ndax li ëpp ci yaq gi moy nit day def lu bax ñu woné ko ci waye nit dana def safaat ba ñu rétet ko ci ba aduna bëpp ab dara ci jar dara mu melne ne da ngay dugg ci kër dañ Eh, daanaka kenn dutal tal kenn kenn ku nek da ngay seug ci téléphone la nga war waxtan ak bokk ga ak famille ba euh, temps bepp nga def ko ci internet bi war na whatsapp di partager vidéo yo xamante ni maanaam da nga yak dro nit wala nga ci gis ay euh, sabotage yo xam ne euh, té comme nima ko waxee rek kenn ku ci nek da nga yor doon chef de rédaction ci téléphone war ngay xam comme ni journaliste bi seggee lu baax di ko yow yooyu mi yor sa télé wala sa téléphone non nga war di séggé lu baax diko diko di waye dal li gis dal moy yàqu gi bëri na. nit ku nekk jikkoom moo nekk ci téléphone nit ku nekk ni mu mel moom la téléphone mel léegi nag euh, ki nga xamante ne tey taal na téléphone bi waxtu yu mu koy taal lam cay wax muy génn mooy la nekk ca moom bu dee lu baax moom lay wax bu dee ba loolu lay wax loolu nag moo tax mu yàq lu bëri ndax danga gis koo xamante day am problème ak nit jël ko te saar ci internet bi ndax jikkoom moo mel noonu ndax nit ku baax. du wer muk mukk doom moromu nawlem ci fenn ko xamantene tay soko toñante mu jéggal la dok toñ mukk def ci internet kon motax yaq yaq li bari bari lepp jikko yi la jikko yoy nak mo feeñ ci téléphone yi daf melni mi yaq mo moo ëpp daal ni muy yàqu moo rawet na ci xalé yi nga xamee ci bu ñëk li nga daan mëna yara sa njabot daan tok ak ñom légui donte ñi ngi ci biir kër gi gën ñu sax daanaka ay ku nekk ci biir këram ba noppi France wala mu nekk fu te xay na xale yi àggagu ci xàmmee xàmmee goo xam ne si dañuy romb lu ñaaw effacé wala ñuy romb lu ñaaw bañ koo xool yar bi war ci ñoom avant ñuy àgg fu euh, amuñu ko moo tax dañuy sawar ci publier lu ñaaw buñ gisee lu ñaaw duñu xam li nga xam ne si noonu lañ ci war a taxawee duñ ko xam daal dañuy sawar ci eh, lu ñaaw njëkk koo publier ci lañ ci lañ sawar loolu daal te siiwal lu ñaaw moom baaxul daal suñu borom koy aaye rawat na sa mbokkum jullit nag. dafa bari lu mu yàq ndax fi mu toll tembe kenn kum ci mën a doon ku ne muy kilifa muy keneen kum mën a doon ku ne allah kulli saa boo toogee sa xel ma ma nga ci whatsapp ba xamatoo koy war a nuyu xamatoo koo war a jàmmanteel xamul koo war a maslaal allah kulli alli sa appareil daal maanaam moom nga teg défense. maanaam dafa bari loo xam ne lii appareil ci boppam dafa bari lu yàq ci réew mi ndax kenn kum ci mën a doon ku ne yow ci sa wàllu bopp boo masaa toog yàq sa njaboot. wala nga toog ak sa doom yaa ngi waxtaan ak moom ci loo xam ne lii maanaam luy defar luy defar ak bokk nga di ko xamal maanaam diw sàngam nangam nga bokkee nag moom diw sàngam nangam nga bokkee nag moom te léegi loolu amatut kenn ku mu ci mën a doon ku ne daal boo xëyee boo toogee yaag sa doom allah ku leen kenn ku ne yaa ngi ca WhatsApp. da nga dugg si kër léegi sax nga sone amuñu sax temps pour ñëw ubbil la à cause des ci la nekke kenn ku ne concentré ci sa bos di def lu la ñor lu ñur loolu tamit problème bu mag la nit ñi yëg-yëg bi ñu daan am si nit ñi temps nga xamne da nga daan yakamti sa xarit wala sa mboko seet la mais tay sax sa mboko da lay nga ne ko duggal ci salle bi xal ma ñew nga du concentré wu ci sa téléphone lolu tamit cause internet la moko def moko waral tamit xamna ne mooy loolu daal da na lo xamne ne war nañ ci war xel bu ñu xolaat tamit mam ñu ñëk ñi nan la ko ak tuba bi nga xamne ne créer internet mo defar lépp nan la ko utiliser parce que ñun en tant que africain ñun dañ ñom dañuy créer dara rek teg ko ne ñun ñu jël ko gën ci ëpp quoi parce que mën nga utiliser mënul ñàkk waaw mais da am nañ koy utiliser. damay faral di wax ni manam ñun ñu tok ci kër gi di waxtaan ñi nekk ci mbéddum wala ñi nekk Dakar da ngay nekk Touba ku nekk Dakar gën la neex waxtaan ci kër gi ndax da ngay tok ñun ñëpp ñu tok wara waxtaan waye kenn ku nekk yaa yor sa téléphone kaj kaj dari wax envoyer message kenen au lieu nga wax ak ñun man nga tok ñun bu juk benn baat ngay wax wala ñaari baat salamaleekum na ngeen def yéen a ngi na ngeen yendo pare nga ci jël nga sa téléphone di waxtaan te loolu maanaam dina waral jafe-jafe yu bëree bëree bëri ci kër gi duñ ko xam ndax li tax duñ ko xam mooy li yendu woo fi li waa kër gi yendoo loo ko xam bu accès yaa ngi toog jàpp sa téléphone di waxtaan maanaam mu yàq ambiance su kër gi da ngay dem ba ñi nga war a waxtaan doodo wax ñoom ñu gis ne daal maanaam jafe-jafe bi mu indi ci biir kër yi bari na lool lool lool lool lool lool sax euh, nga ñëw ci kër yi tey widd bi amoon mooy borom kër yi dañ daan toog di wax ak seen njaboot bu njëkk léegi borom kër bu jógee ca fa mu bu wàccee toog na biir néegam du gis ak njaboot gi bàyyi leen ci télé bi bi téléphone bi télé internet bi ñëwee nag day ni boole léegi kenn ku nekk jël sa téléphone nekk ca téléphone bi muy yor kenn ku nekk euh, ka muy waxal lay jikkoom rek lay jot léegi nag moo tax kër gi duñ mën a duñ mën sa bokk xalaat mukk di indi ay problème parce que kii day yokkoo ko baax mu koy wax lu baax da gis ñoo xam ne ci famille ba di waxtaan ci bi lu baax am koo xam ne ma ngay wax ak keneen ci leneen di jëw keneen kooku ca loolu lay dund kee gis problème mu jàmbur mu jël ko andi ko ci internet bi ñëpp jot ko parce que kooka moom mi ngi xoolu lu ñaaw ci doomu aadama mën ko tasaare loolu nag moo tax fi mu toll nii andi na problème yu bëree bëree bëri bëri wante nag dafa am njariñ lu rëy nag njariñ loolu tamit nag das koy bàyyi xel ndax tey ki nga xamante ne day sàkku xam-xam saa bu ci internet xam la ci am ki nga xam ne day sàkku lu baax saa bu duggee ci internet lu baax la ci xam kii wër nag nga xam ne amul fu mu jëm lu mu dajal jël kooku waxtu wu nekk internet daf koy lor loraa nga ci kooku ëpp am na côté boo xamante ni ñun élèves yi daf ñu ciy jàppale am na côté boo xamante ni nag amu si njëriñ ndaxte tey jii ay famille yu bëri yoo xamante ni boo toogee bëgg a wax ak ñoom sax kenn ku ci nekk da ngay sëgg ci sa téléphone ba doo xam li ngay wax ak nit ñi wala tey jii boo nekkee classe wara a concentré wu ci li nga xamante ni moom la professeur bi di expliqué da ngay ci sa téléphone ba li ci bëri explication yi dina la rëcc côté bi mu baaxee nag mooy fi nga xamante ni dina la xaw a jàppale tuuti ci sa wàllu jàng ndax tey jii su soxlaa benn affaire mën na dugg euh, ci internet bi wala ma dugg feneen ak feneen ma tàppe ko mu indil ma ko loo xamante ni xamuma ko côté boobu baax na fi mais am na côté yoo xamante ne nag day yàq ndaxte famille yu bëri daal te kii na ci yooyu noonu ñàkk nañoo déggoo ci affaire internet. dafa doon loo xamante ni da doon lu mënta ñàkk ci. suñu dund ndax dañuy permettre ñu communiquer ak ñi ñu sori waaye dañoo gis ne maanaam dañ koo jël ba mu ëpp te niñ ko jëlee ni ñu ko war a utiliser utiliser wuñu ko njëriñ li ñu ñu war a jëriñ jëriñu ko léegi yàq gi moo ëpp ndax ni mu ñu yàqale mooy maanaam kenn ku nekk danga koy jël def ko uti xeex boo xamante ni da nga ciy xeex ak sa morom di jël yu ñaaw di ko ci wane di jël yoo xam di rafetu di ko ci wane di saaga koo xam ni jotewut ak yow dara nga làqatu sa ginnaaw ordinateur machine bu ndaw bii nii wala sa téléphone bu ndaw bii nga jël ko gis koo xam ne jotewoo moom dara xamul xamanu la nga bind ci facebook bi wala nga de ci whatsapp lo xamante yonam neeku ci nit ñi japp ko ci di ci xass di ci wax lo xam say manam lu ñaaw la nga ci am bakkar nga yaakaar ne yow yaa ci ndam neeku ci ndam loolu lu mën a la buñ ko indi da manam utilité la pour manam ñu jariño ko mais jëriñ ko manam pour def ko ngandaay diko xexé ñi xex l'islam euh dañ ko jaar ci internet bi ba ma ci lu bari bari bari ndax ni ni am nit ñoo xamne seenu lir alquran des na seenu virde des na seenu jankas si des na kaw ci gis ma nga deug telephone tolo wax deug yalla bokku tak melokanu julit kon dal xamna li ñuy wax mbokk yi ñu ci baña xababal ndax mbir mu nekk la ci ëpp baaxut tay ñu ci bari ñi ngi ci duggute jang demi non ñi ñi mën ñoo liir mënu ñoo xam lu bax ak lu ñu wara woné ak lu ñu warta woné xamna dal limay wax moy état bi ci bopam waroon nako sécurité pour wutal ko ay sart yo xamanteni bi manam non la war di doxe waaye dal ñi ñi ko bàyyee nga xam day melni sabar për rek lu waay jot sànni ca lu waay jot génne te loolu it wax dëgg yàlla du du du lu baax. ñàkk xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy jëfandikoo téléphone daal léegi daanaka whatsapp mënatoo seeti kenn sax ba toog moom mën a waxtaan ak moom ndax ni ñu ni ñu concentré woo ci téléphone dafa ëpp daal te daanaka tamit temps bi ñuy dañoo xamul njariñul temps daal temps bi ci boppam bi ñuy perte temps bi ñuy perte dafa bari lool ci whatsapp. waaw loolu nag moom sincèrement di nga ci booy réparé téléphone. des fois nga am maanaam bu dee da nga koy mën nga ko bañ a gis waaye bu fekkee dañ la ci réglé loo dara mën nga cee gis loo xam ne waroo koo gis mais bu fekkee ci réparé rek nga yem tekki weer bi tegaat ci beneen weer wala nga changé micro bi wala nga changé écoute bi ak yooyu noonu mën nga cee bañ a àgg foofu noonu mais bu fekkee dañ lay réglé loo mën nga cee gis loo xam ne waroo koo gis la waroo koo génne waroo koo wane waroo koo wan maanaam client bi sax waroo koo wan ne maanaam gis naa ci loo xamante ni lu ñaaw la ba ëllëg nga di ko xoolee parce que kenn ku nekk ak sa vie privée loolu nag day day am des fois nga gis koo xamante ni téléphone am bu ñëwee wala ci léeg loo dara boo ci duggee yow sa bopp da ngay tiit da ngay da ngay mel ne du du yow da lay arrivé mais da ngay xam ne lii xëy na moom foofu la situation maanaam foofu la xelam toll mu mu doxee noonu rek waaye doonul lu rafet daal. dooy na waar rawatina sax ñi nga xam ne extérieur lañ nekk bari na ci ñoo xam ne tey ñi ngi lor ay sénégalais yu nekk fii ci réew mi da ngay nekk réew ma nga nekk góor wala jigéen sa copain wala sa copine nekk Sénégal nga ne ko vidéo sa bopp envoyé ma ko mu video boppam envoyé la ko il suffit ngeen emprégnat wala nga bëgg ko saako wala dara santaas ko ne ko da ngay def lii wala ma génne sa vidéo ci internet bi fekke ne dafa bañ nga envoyé ko ci whatsapp ak groupe bi mu tassaro ci réewam yak nga vie privée yak nga adunam lolou tamit gis na internet moko waral te tamit acte bu ñaawa ñaawa ñaaw la parce que tamit relation amul mënul ñak si ñaari nit mais ak quel que soit alpha amna lo loo ci ay ay julit tamit avant tout ñun ay julit lañ am na loo rafetul quoi whatsapp bi mi ngi mi ngi yak lu bari fi ci Sénégal mo loolu moom wax dëgg yàlla am na genre yoo xamante ni dañuy jël ay vidéo jàmbur wala ay photo jàmbur di ko jël di ko partager ci WhatsApp bi wala Facebook wala YouTube wala Instagram wala feneen ak feneen loolu moom moo tax réseaux sociaux sax xaw la baax si benn côté. nit ñi moom li ñuy yàqu moo ëpp li ñuy defar ndaxte tey jii bu ma bëggoon a yàq rek pour ñu yàq ma lu yomb la man dañuy dugg sama compte rek jël samay photo def ci lu leen neex buñ paré publier ko bu boba dañ may yàq. chantage mom bari na lol mais nak légui xëy na ñu def ñu xamul la waye ku xam daan yi la ci mëna fekk mom yaakaar na du ko jar ci yow dal da ngay chantage ni ki du ko jar ci yow waye nag nit ñukoy def mom ñàkk xam motax ñi diko def parce que mom conséquence bi nek dafa am ñaar daanu ci nek daani adduna ak daani axira parce que bu la jappé ci yoon ni lay tek ci daan do ko atan ñaare ba suñu borom daf koy ayé yar bi mo dess lol lol ci ñepp daanika xamatuñ sutura te loolu lépp nag bari na lu ñaaw loo fiy dégg loo lu baree bari loo xamante ni naka jëkki daana am mais li ko yokk léegi mooy téléphone yi bari na loo looy jégg nga jàpp ne lii dawul am fekk bu njëkk daana am mais sutura moo ëpp moo amoon te léegi amatul daal dafa mel dañuy dañuy ndamoo sax di tisaare lu ñaaw daal loolu mooy problème bi kon dafa jaadu nag euh, ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite ci réew mi ji surtout ci médias yu mag yi ñuy gën a sensibiliser askan wi di wax ak ñoom ndaka la ñuy jëfandikoo internet ñaate mooy ci école yi suñu école yi ñu ci jàngal xale yi ñoom ñi nga xamante rëccaguñ di leen teel wax ndax xale yi ndaw yu bëree bëri léegi kat ku ci jóg yaa ngi internet ñu leen di wax ndaka lañ war a jëfandikoo internet ndaka lañ ci war a jumtukoo ndaka lañ ciy duggee ndaka lañ ci mën jariñoo loolu da cee baax waaye tamit kilifa yi di waxtaan nit ci mit képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo internet lan moom nga nga ci war a jël lan nga ci war a jëlee lan nga ci war a jàngate parce que internet bi nga koy indi lu baax rek moo taxoon waaye li nga wax nag nekk jikkoom la ciy indi jikko yi nag ñëpp bokkuñu yem kon da fexe ba li ngay jot bu fekkee sa jikko melu noonu nga xam ne du lu baax nga teel ci génn kite nekk ci leneen li nga xam ne moo la waral moo xam ba ci photo photo bi nit ki xol ne rafetul mu diko ko envoyé su ko xolani ni la yor diko ju bax du ko envoyé son photo bu rafet la mu xamne lu bax la mu envoyé ko kon ki tisaré na tisaré lu rafet lepp lo gis lu ñaaw la bu ko envoyé kenn daay ko supprimer mu baña jall bu ñepp jëfëndiko non yaakar naa ne ngaañ li mëna neew lool mu moom jikko yi dal ba nga xamante ne bii gis sa bop muy ayib nga neubul ko sa bop boko gisé ci jàmmur neubul ko jamur ba waro ko tasaare ki vidéo ndax julit warna am tawit warna ragal yalla amna lo na loo manam yak bii Ah, ni jëf amee ci jàkkaarloo nit noonu la tasaare vidéo am wala photo am ay jëfam yu baaxut araamee ci ci ci jullit mu def ko moroom jullitam man daal loo xam naa bu ñu ko mën a moytu léegi parce que jullit koo tere lool lislaam da koo tere mu jëw nit te am na ci yoo xamante ne bii waxuma la jëw waaye yàqu dërëb doomu aadama ndax euh, kenn ku ne ci ruqam di def yëfu yoo xamante ne bii maanaam bëggut kenn gis ko yow nga fexe ba penc mépp gis ko loolu wax dëgg yàlla du du rafet bu ko mënee bàyyi bàyyi moo gën di ci wane lu baax te lu baax sax boo koy wane da ngaa war tàggoo borom ba mu am ci ndigal waaye nag rawatina na lu bon moom lu bon moom daa gërte wane parce que benn bu bon bu nekk gase bu mu xoon nga suul ko parce que wane gi day wane ne euh, dana ci mën a defee ay pexe moo kin ma man mën koo gën a def da nga ko jàng nit pour mu mën ko gën a def te loolu lépp bu nëbb woon mën naa am xam ngi du demee noonu bëri na dégâts yoo xamante li ko waral mooy ñàkk a askan wi ñàkk sensibiliser askan wi ñu jot ko kenn ku nekk ne ba jotee jikko ka nga jokk jokkoor rek kooku ngay jot man daal loolaa gis ci internet bi gis na am na njëriñ waaye boo xoolee jikko jikko jikko ju ñaaw tasaare ko ndax day mel lu bon lañ gën a yàkkamte tasaare ci lu baax loolu ni ko mooy jikko yi moo yàqu te dañoo remplir xamante ne dara nekk foon mooy ba ma reer ba pare dañuy toog njaboot gi léegi na loolu amatul bëreetul télé yi ñu ba seetaan duñ ko parce que dañuy wax ne li ñu gis bëreetul amul leen njëriñ léegi nag xale yi jël jikko yooyu nag yorante ko moo tax fi loolu nii kër goo dugg léegi fukki xale yoo fi nekk fukki jikko fi nekk ndax kenn ku nekk sa sa jikko te téléphone ba jikko jëmu yor moom la jikko yi ka muy jokkool kon fi naa ne koo gis téléphone ubbi ko loo ci fekk mooy jikkoom am na njëriñ parce que tey mën nga ci transférer ay def ay message yoo xam ne tey boo bëggoon lu gaaw rek mu leer kii nii nii temps bi ngay jël di jënd crédit ko il suffit nga am sa sa kër sa mën na ko résoudre mën na la jàppale ci bëri fekkee xam xam-xam nga bëgg tamit comme élèves yi loo bëgg prof yu aaya ngi ci di jàngale matière yëpp loo bëgg ci lu baax rek mi ngi ci am na njariñ am na ay inconvénient wax dëgg yàlla mi ngi defar mi ngi yàq jamono ji ay jigéen yu bëree bëri génnatuñu seen i kër la ko waral weesuwul nekkoon seen i vidéo moo nekk ci biir internet bi nu seetlu it ne am nay kilifa yu nga xam ne ay jigéen ci boppam ñoo leen xoj xoj googee la ko waral weesuwul it ne dañu yore seen i vidéo mu mel ni kon internet bi mi ngi jëriñee waaye mi ngi lore